ñu ànd ak yow ci tiis bi nga xamante ne dal na ci monde de la lutte génn àdduna Moussa Dioum nan nga ko yëgee ak yan témoignage nga ñu mën a defal ci Moussa. waaw jili ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi di balu ñëpp ax ci weeru koor gi di am tiis ak naqar waaye suñu borom moom kenn du ko coog moom ndax programme yàlla moom du jaas programme doomu moom mooy jaas képp fii képp koo koo fi yaakaar rek wala koo fi doon dégg rek boo àndeeg nit dina la yóbbu ba ne la fii la tëdd donc nag ñun ñëpp kenn du fi des waaye nag ñun parcelle am nañ tiis am nañ tiis am nañ metit ci nga xam ne mooy suñu rakk suñu xarit suñu àndandoo ñu defandoo lépp nag mu génn àdduna ñu koy jàll àdduna yëpp di ko jàll axlu làmb yëpp di ko jàll waa parcelle yëpp di ko jàll xarit rakkam yi nga xam ne ñoom la nekkaloon man Moussa daan naa déggante ak moom tout temps. maa moom ànd nañ dem États-Unis boo nit boo ànd ak moom tukki rek mun ngaa seede ci moom as gor la nit la ku ku ku ku ku mën a wax lu baax ku mën a def lu baax nit la ku yaru nit la koo xam ne tam foo ko fekk kaf ree lañ ko xamee fexe na ba marqué empreinte ci histoire Parcelles Assainies fii ñu taxaw nii ñun fii la ñu fooye fii la ñu màggee mais Moussa ci li wër 26 unité yi ak ñi fi dëkk koo ci waxal wallahi li muy seede ci Moussa Dioum mooy nit ku baax mun kaf mun rey donc yàlla na ko yàlla jéggali bàkkaaram yàlla xaare ko àjjana maag Modou Lo ba léegi ñu ngi déggante ñoom ñu ngi ci armée li nii à l'instant même mu doon loo xam ni mun nañu wax ci moom ay anecdotes yu bari yu bari lu ñu débuté dem Pikine ànd ak baabo yi mu doonoon daanaan mën a bëre moo am seen bu ñu daan bëree nit ñi dañuy toog di ko seetaan loolu mu doon loo xam ni su ma xol fees na mënu ma wax waaye li ma ciy wax rek mooy jeunesse Sénégal nañu bàyyi xel bis bi bis biñ lay tëral ci buntu jàkka ji naan ku ko ameloon bor na nga wax ak diw li ñuy jullee mooy yàlla ko yàlla yërëm loolu la ñuy jullee nit te bu ñu seetloo euh, jamono ji ñu toll mooy jeunes yi mooy njagamaar yi muy saasumaan yi muy euh, jànq ji muy jéeg ji xale yi daal maanaam ñi nga xam ne ñoo yor tranche bi gën a baax ñu ngi dem dem bu bu bari lool na dafa laaj taxaw seetlu ñu xoolaat suñu bopp suñu waxin ci réseaux sociaux yi suñu doxalin suñu defin te bu ñu ñuy roy muy Serigne tubaak ak maam El Hadj ak ñeneen ñëpp ñu ñuy roy bi ñuy def li ñuy def boobu âge bi ñu amoon ci ci saayir duñu woon ay mag ay 30 ans la ñu amoon ba 35 ans. sëñ Tuubaa bi muy bind Masaalikul Jinaan boobu du woon mag maam Alaaji Malick bi muy doxal li muy doxal du woon mag Cheikh Oumar Foutiou bi muy dem Màkka du woon mag def na Màkka vingt-quatre ans te ñu dañu taxawal de projets de société kenn musu ci saagante kenn musu ci waxante lu ñaaw kenn mun ci defante ba seen ba seen euh, euh, seen seen seen projet de société jeex ñu wuy ji yàlla dem àjjana donc ñun nag Sénégal war nañu xoolaat suñu bopp muy kilifa yi ci bis mel nii boo la ñu war a toog di def rétrospective suñu bopp di xoolaat mooy ñun ñu seq ak lu làmb yéen ñi yor camera yi lépp loo xam ne dégg ngeen ko ci lu bon dee leen ko dindi dee leen fësal baax baax parce que àdduna jeex na àdduna jeex na bu bu léegi rek mun naa la tegal ay vocal yoo xam ne maam Moussa Dioum ñi ngi doon wax mi ngi mel ni jógewu fi woon donc ñu ngi koy ñaanal yàlla jéggal ko ay bakkaaram kon ni mu ko waxee woon Baye Paul bërki dem ne ko gëj nañoo ñoo déggante waaye maa ngi maa ngi yow ba àjjana yàlla nañu yàlla boole ñu ñëpp ñu ñu dem àjjana ñu fi des yàlla bàyyi leen fi yàlla jéggal ko suuf ca jégal ko ay bàkkaaram oyofal suuf si koom ñi ñu fa fekk tamit yàlla jéggal leen seen i bàkkaar ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm waaw ñun bu ñuy waxtaan bu ñu doon waxtaan bon bi ñu mujjee dëggante ci weeru koor lañ nekk lu nit di wax da nga ci wax loo xaq kaana mu mm-hmm. ci waxu politique lañ doon wax mm-hmm. mu mooy encouragé di encouragé Amadou Ba Matar Ba aussi dëggante nañ ci par message moom tamit mu kii mu nax mu métti lu ko lool mais Moussa lépp lu xew comme maam moom ak Baye Pël dañu am ay liens yu ñu liyee lépp lu am rek danañ ci diisoo mais nitu sutura la mm-hmm. boo gisee lu ci bari nit bu ko seqeek nit bu génnee àdduna na ko denc yenn yi nga xam ne dañ ko doon échanger yenn vocal yi yenn wax yi nañ koy denc mm-hmm. parce que loolu sutura la mm-hmm. bu nit di génn àdduna ñuy uññi suturaam mm-hmm. donc daal li may xamal daal suma xarit la woon suma nit la woon nit ku baax lañ seen kër fii xam naa ko sama kër xam na ko xale yi muy àndal xam naa leen bu baax xam naa jomam fitam ñàmbaaram xam naa jubam xam naa dëggoom yàlla na ko yàlla fay loolu yóbbu ko àjjana farosi li ma gën a marqué si moom bari na ay ay ay anecdote la yoo xam ne yuñ dund la en tant que jeune yoo xam ne tey bu boo ko waxee sax du bisu wax parce que da dal dana doon lu reetaanlu. Mm-hmm. waaw damay fàttali jour bi ñuy dem mbapat Modou Lo di daan euh, Elton di daan les de di dëkk Balla Balla Gaye man maag météo ñu ne ko demal dëkk Balla Gaye ci babi bi nekk fii lañ ko fekk. ñu ne dañuy dox ba kii parce que àdduna noonu la day dox. Mm-hmm. ñun ñu dox ba case ba pour ut oto ñu fekk dajeeg moom ci kii bi ci babi bi muy babi foofu ñu ne ko nañ dem mbappat ba boobu ay une heure du mu ne ñu soluma dàll ay carax laay sol keroog Modou Lo moo summi dàll yi mu soloon bagi jox ko ko ñu jël carax yi ñu dem mbappat ma Modou lañu ngemb jour boobu ñun ñëpp ñu toog ñu ko jëlal diw jël diw mu daan ñëpp biñ demee ba yàlla def gars yi ñu war a jël saaku ceeb bi gars yi ne doo leen yóbbu saaku ceeb bi ñun tamit suñu xadar ak suñu trophée ñu ne suñu xadar rek ñu ne dañ koy jël gars yi dàq ji ñu nag biñ ñu dàq jee keroog dafa daw ba dàll yi toj ñu daje case bi fii ma fekk ko fi mag conke sil ndeysaan loolu mbokk na ci lu ma marqué mm. beneen bi aussi maa ngi Modou bi Modou di préparer galaa bi nekk nañ ci àll mu woo ko mu woo Modou boobu moom mi ngi doon moom mbër kaamil la boobu galaa bi kenn amatu gudd ci defet waaye boobu talul boppam mi ngi tal Modou Lo wallahi lu waaye wax di nga ko waxaat ëllëg di ko joxe ay tegtal naa ko defal li demal fii demal fii ñaari affaire yooyu bokk na lu ma marqué ci moom beneen bi tamit bi ñu àndee voyage yi bokk na lu ma marqué ci moom ci animation ci nit la koo xam ne ku bëgg nit nit la koo xam ku am ouverture d'esprit nit la koo xam ne jiitalul alal àdduna waaw donc Moussa Dioum daal li mu ci mën a wax en grosso modo waa parcelles yëpp ñi ngi koy jàll Sénégal au nom des parcellois ñoo ngi ja ñoo ngi koy delloo njaal mi di wax rek ni ñi nga xam ne ñoom ñoo ko waroon ak ñi ko doon jàppale bu ñu fàtte yaayam bu ñu fàtte ay frère am di ñaanal ñëpp jàmm. allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam jërë ngeen jëf. merci beaucoup ñu génn àdduna Moussa Dioum mu nekk sa mbokk ngeen bokk làmb yan témoignage nga ñu mën a defal ci Moussa Diouf. waa salaamaaleykum maa ngi sant yàlla bu baax di wax inaa laaj wa inaa laaj yaxoon di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yi xare ajana nit ku baax la man passé mboolo laa nekkoon bi ma jogee écrit Bawol ma dëkk Grand Yoff moo ma woon ne ma comme yaa ngi Grand Yoff écrit Bawol dafa sori ñëwal sama écrit ma man nekk fii fii laa bëreeg ñu bëree bëree bëri mooy mënoon nit ku baax. fan yi rek danañu chaque suba rek danañu téléphone bi laay sama combat saa yu ma amee combat mu woo ma di ma conseil man moom sama sama xay la woon ba sama combat liiru jaan bi gam bi minute bu ne billaay wallaay mu may woo barke Mouhamed lii ngay bëri ak moom bëri ak lii bëri lii. ba ba ci maag Adama Diouf bii mujj dama dama fekk ba sama cumikaay ne ma bëreel li bëreel li bëreel li nag ku baax la. billaay walaay taala. du affaire bi dafa ma naqari ah. billaay walaay. bi bi bi ma ko déggee télé bi ba tey nelaw ma parce que nag wax dëgg sa day yu bëri jaana fi mais bii moom dafa ma naqari. parce que nag day doon doon doon sama sama sama grand frère. chaque jour sax moom bi ma nekkee passé mbo dina wax ne man ak moom dina dënnu jaawale. noo xaw a niroo mu nit ku baax. yàlla na ko yàlla xare ajana. Moussa ku baax la. parce que Seydina Mohamed. génn àddunaam ci lan la la fekk ak nan nga ko bi laa taal. billaahi wallaahi Pape Cheikh bi mu koy wax sax tuut ma daal parce que dafa dafa ma bett quoi. dafa ma bett bett bett bett bett fan yee dama estati ba yére mu woo mu woo ma ni ma yére bi may ma ko billaahi wallaahi. même pas un mois yegul dara. xaw ma sax feebar ndax xaw ma ko woon. moo tax bii bi ma ko déggee dafa ma mitti di ko ñaanal yàlla nag. bilaay walaay. xam non. non dama la mën naa la woon suñuy discussion whatsapp yu bëri bilaay walaay yow Fadel. man dama bëggoon lu ma estati mu gis ko commentaire fa kilifa. bu ma estati mu mu commentaire ko ne ma fexeel ma xam kii nekk ku baax la barke Mouhamed yal na ko yàlla xare ajana man sama xarit la woon barke Mouhamed topp parcelle mbooloo bi ma fi nekkee aussi jàmm la ñu maak moom mu combat bu ma bi ma nekkee parcelle mbooloo combat bu ma mës a am moom moom moo ma yóbbu. bilaay walaay taala mm. non di dégg nit dama trop. mais nag yàlla sunu borom kenn ma tax jóg moom. bu ko newoon sax man mi fii fi may wax ni mu rëy ma to du ma ci dara. kon di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare ajana. yàlla na ko yàlla xare ajana. parce que nit ku baax mosuma gis mu mer. nekkoon nañu passé mbool kaf reetaan comédien bëgg gars yi di reetaan. nit ku baax la de. billaahi walaay taala. lan wax njabootu làmb di wax ñoom ñëpp. nanu ko ñaanal. nanu ko ñaanal man daal vraiment. man daal dama koy ñaana te di am aussi euh, xel mu daal ci weer wii mu dëddu bilaay walaay gis nga nit ku baax ci weer wu baax lay dem ci bés bu baax lay dem parce que nit ku baax la billaahi walaay amut xolu iñaan man dama la ne xool même bi ma gënee parce que mbooloo nekk écrit bawol combat bu ma mës a am mag Adama Diouf xool open presse bi bi ma koy waay moom ma woo ne ma damay ñëw Keur Massar bi laay évité ba sax du ma sax invité moom moom moo wol boppam. Hmm. maak liiru jaan noonu chaque jour mooy woo wuli nanga nga bëreel ñu gaa xam nga yooyu sax yu bëree bëri mu nekk conseil. nit ku baax la. Hmm. yàlla na ko yàlla xare ajana. yàlla sunu borom mi nga xam ne mooy sunu borom. Hmm. di sama xarit ma koy ñaan Moussa Dioum mais na ma ko yóbbul ajana mën na ko di. yàlla maa ngi lay ñaan. maa ngi lay woowaat la ah, lancer waat personnellement. nga jël Moussa Dioum yóbbu ma ko ajana to yal na rëccu li mu doon def fii sax yal na ko yàlla boole ak Seydina Mouhamed boole ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi mi mu yaakaar laay nit ku baax la jërëjëf mbokk internet yi Dakar Buzz ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen jàllale li nu bokk ba tey ñu nekk fii ci parcelle ci génn àdduna ki nga xam ne moom mooy Moussa Dioum ma fekk fi nag kenn koo xam ne Euh, c'est un doyen nit ku baax kat soom di xaritam maam les maam les kenn ku xam digganteem ak Moussa Dioum nekk coach si parcelle mbooloo di ci liggéey liggéey bi am solo di teete xale maam ginnaaw bi leen yoo di la masaw ñu bëgg laa jaal sa digganteeg Moussa Dioum waaye tey sa digganteeg Moussa euh, d'abord maa ngi jaale képp koo xam ne ci làmb ngay dox kullukum di nuyu waa Dakar Buzz yëpp di rafetlu aussi li ngay def ci àdduna nit ñaa ngi koy seetlu ñu ngi koy taytu ndax internet bi léegi kenn dafatul ñu ngi lay sant ci loolu bu baax di la gërëm euh, Moussa feebar bi gaaw na gaawut gàtt na gàttul maanaam ay abse yu ndaw yi doon ñëw la di génn tànk bi bi mu ko gisee entraînement premier jour bi ma ko gisee dama ko dàq école ba parce que boobu dafa fekk ñu doon préparé Ibra Ngabou ak ak Obali mu ko doon nëbb mais ñàkk maa ñeme ak jox cër gi ma jox cër ak respect bi ma respect ba ma tax ma toog Parcelles Mbooloo depuis 2010 ba léegi yàlla ak jëmmam la. Euh, li ma la mën a wax ci Moussa ci lu gàtt di ma la tënk duñ dañ fi yàgg mooy ku baax la ku bëggul kenn mer la kuy ku ku kuy dox ci jàmm la. bu paree entraînement bu génnee këram mooy day ñëwaat entraînement journée bu yàlla sàkk musta toog bis bu jàll te déggante démb bi ma koy woo wallaahi xasib heure bi la eh, rakkam bàyyi laat ne ma dafa xaw a sonn lool mais bu ma ndagoo ba pare danaa la ko jox téléphone ndax bàyyi xam na ni mu mel ak moom te xam na liñ seq ma ndax ren defaral naa ko lissance frappam defaral naa ko lissance su simple am naa ko licence olympique kon ab na tey pour man góom bu ndaw boobu dina wér mais xam nga làmb ak ni làmb yi doxee bàyyi mën naa joggi loo xam ne du ko xam mën naa dem foo xam ne lekk loo xam du ko xam mën naa dem tooke dal ko foo xam ne du ko xam te yooyu am na ci yoo xam ne maanaam de léeg dem ci olof gi tuuti da ciy baax waaye xam nga suñ borom aussi bu soxlaa ci yu mel nii ñun ñëpp ala kulli muy man muy keneen ñun ñëpp day dem te suñ borom a soxla soxla na nag ku baax nag muy Moussa yóbbu na ku baax muy Moussa. yóbbu na ko bëggul kenn mer maanaam moom boo ko meree day am problème te nit ku ko meree si saas la may woo maam diw mer na ma maam diw nangam maam diw nangam journée bi du ñu toog benn fan bu jàll wala ñaari fan du déggante kooku ala kulli àll seen waa xam nañ ko bàyyi laat mii rakam di fanaan moo na ko ci li ñuy waxtaan ci làmb ak li ñuy waxtaan ci diggante frère ak mag ak te boo bëggee dégg-dégg rek parcelle mbooloo gii ma toog nii moo fi toogee depuis 2010 ba léegi yàlla ak bu saaju ma tax. boo bëggee dégg-dëgg. tey bu ñu ñëwaatee tuur ci ginnaaw est-ce que lii du gën a ragal loo tam xale yi ne ci làmb parce que barki dem gis nañ Laurent Ndiago mooy tànkam am lu ca génn. muy lu doy waar loo xam moom nee na xaw sax li ko teg. ak li yóbbu Moussa a a loolu nit euh, kook jikkoom nit am na nit ñoo xam ne ci milieu làmb bi nekk pour ñu am ndam daneen jar lu ne xam nga loolu yow <laughs> du lu ma lay nettali am na ci ñoo xam ne ragal nañ yàlla am nañu islam goo xam ne yéen ñi ñemewuñ ko am na ñoo xam ne tey boo leen ne rombal armée li sànni ci kayit gi balaa ñoo tëdd ci lal danañ ko sànni donc nag mbiru yàlla la te ci àdduna lañ ne ñun yàgg yàgg day dem fekk suñ borom yaa ngi dégg kenn ku ne la nga liggéey fa moom ngay góob foofu donc ñu ngi ñaan rek nii mu dëddu àdduna yi suñu borom xaare ko àjjana waaye mbiru làmb moom ak li nekk ci làmb ñun ñëpp xam nañ li ci ne. parce que li ñu dégg mooy Moussa tànk bi bi mu ko songee bi mu ko bi mu ko attaqué daanaka diggante bi dafa gaaw. début janvier dégg nga wax boobu ñu ngi préparé Ibra Ngaabu ak ak Obali moom moo ma doon jàppale parce que léeg école man dong maa fa nekk donc man dong maa nekk école bi man maa koy woo ne ko Moussa kaay jàppale ma ci xale yi pour ñu régler def quelques détails réglage yoo xam ne bu ma nekkee ci nga nekk ci kële mais man bi ma gisee tànk man maa na ko toogal. tànk ban zaaru tànk la. da doon def goom bu fi tane fii jël bu fi tanee fii jël mu dem nag ba affecté ba ba xaw a li ñaan rongé wu maanaam li doon gën sax mooy éliminer woon pousse bu mag boobu maanaam pour pour jàngoro ji dañ moo tax ñu yóbbu ko IHO IHO ay fan yu néew la fa def liñ naan comme li ma wax rek ma woo ko démb ay 17 heures 18 heures ci téléphone wuyul mais xam naa feneen fu ma ko jotee moo woo laat mi nekk ak moom bàyyi laat mi nekk moom ne ma bu ma naa la ko jox téléphone ndax moo dogoo naa dugg gis ko ndax dafa xaw a sonn diggante bi muy génnee di jën ndogu moom di ñëw ci hôpital bi docteur woo na ko Moussa faat na loolu loo ci mën. lan ngeen mujjee kañ ngeen mujjee déggante. maa indi licence barki fii laa nekk 23h licence bi ma defar maa ko defar ci arène nationale màgget mi nekk CNG moo ko defaral. waaye bëre bëre dégg loolu xanaa déggal ma xanaa nee naa tafal naa ko frappe tafal naa ko simple tafal naa ko lutte olympique ma wan la fa tey sama téléphone bopp. lu la gën a marqué ci Moussa. ku baax la. ku yaru ku du bëggul kenn mer ngént lu mu dem eh, te aussi am na anecdote boo xam ne bu taxawee fii doo doo doo muñ. Mhm. da ngay ree parce que dana def dana def loolu la reeloo kon baax mooy indi loolu ci nit. Mhm. man déglu ma li ma téye par seen mbooloo Moussa ci la bokk. Mhm. amoon naa yeneen détails yoo xam ne mënoon naa ko def feneen ak leneen lu mu mën a def feneen ak fu mu mën a dem feneen mais dama ne Moussa moo ma téye par seen mbooloo ndax ku baax la. loolu daal ku la koy ñaanal. di ko ñaanal suñ borom xaare ko àjjana di ko ñaanal aussi alxamis gii ñu koy ñaanal képp ku fi mën a teew ci doomu aadama ci ñaanal ko fee mu tëdd ci suufu tuuba suñ borom ko defal ko taw fi ak taysiir. waaw ñaanal leen yéen ñëpp aussi yéen waa Dakar Buzz yéen ñëpp ñoom xaadim ñoom Modou Anta sans frontière waa Wassare Lamb yéen ñi fi ñëw ñëpp ndax yëg-yëg mettit méttit bi ak ni mu bettee. ak waa Dakar Buzz coono gente ci àdduna nit ñi di ko teewul di ko seetaan muy lu rafet surtout yow ñu la ciy gërëm bàyyi bàyyi bàyyi ñu lay gërëm faay faral ñu lay gërëm baax di la ñaanal jàmm di la ñaanal tawfeex ak taysir yéen ak waa Dakar Buzz jërëjëf